mbooleem ku ñuy ñi ñuy teewlu ci réew mi ak ci bitim réew fu ñu mën di nekk di sant bu baax yàlla ci teew gi ñu fi teew ren te teewoon fi daaw di sant bu baax site bii di yéen waa site bii di waa 24 actu ci seen jéego yi ngeen jóg ba ñëw fii fi ci njabootu Cheikh soxna am Cheikh moom Cheikh Mamadou Fadal di sant bu baax ak a sëriñ Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak ak wér ak sëriñ Abul Baraka xalifa Cheikh Mahamadul Fadal ak mboolem jabootu sëñ Fàllu gi ak sëriñ Cheikh Oumy moom sëñ Fàllu ak Cheikh Mahamadul Lamin ak soxna Maam Bousso ak mbooleem suñu kilifa yi bopp yi di yëkkati kàddu yu gàtt rek yu jëm ci bis bii nga xam ne amuñu lu dul moom muy bisu mag bis bi nga xam ne moom la moo mooy mooy mooy mooy mooy ganek jamono Cheikh Mahamadul Fadal tolloog israaju wal miraaj mu ko daan misaal ci naan yonent bi dana lay mën a di guddi gu am wàccuwaay ci lislaam di guddi goo xam ne nii euh, li nga gën li gën a màgg ci ponk lislaam muy julli ci la wàccoon ñun nag ñoo am ci suñu taw feexi bopp joo xam ne nii ki nga xam ne amuñu lu dul moom muy Cheikh Mouhamadul Fadal ci guddik tey jii la ñu di ko dundal muy muy muy muy muy loo xam ne nii Cheikh Moussa am Cheikh Mouhamadul Fadal moo ko njëkk woote ci 1970 ndax ca Congo Kinshasa la demoon wax ne. te booba ñu ngi xalaatal sëñ fallu ay bis mu tëdd guddi nee na gis dafa gis sëñ fallu xaasatan eh, mu mu ne ko ba la ma la digaloon fàttewoo ko kon loolu ci lu gàtt rek Cheikh Modou Moussa Fallou moo ko commencé woote ko ci at yi 1970 yi ba 2000 Cheikh du Lemine woote ko ba 2010 Cheikh Abo mii fi nekk yàlla na fi yàgg loolu te ànd ko wér muy muy bis boo xam ne nii bu ñëwee liñ ci war a jàngate dafa bëri damay wax ne màggal gi nii ñu ko defee ren defin wu am solo la ndax boo xoolee liñ ci jàng lim ci jàng ci alxuraan eh, dayo bi kenn xamul fu muy yem ndax ba weer yu teroo ba tey lañ sumboon di jàng alxuraan ak ay xasiida ak ay salaatu ala bii ngir jagleel ko bis bi lim yi day dem ba dootoo xamati sax nu mu toll kon defin wii moo gën a am solo di wax na itam am na yu bëri yuñ ci daan def yoo xam ne ni man nañ ne njariñ li bariwut muy lu mel ne CRD ak CDD ak CLD ndax ren yooyu ñuy wax benn amu ci te daa mel ne màggal gi ren la gën a neex kon yooyu amul njariñ amul njariñ amul amul njariñ ak ak ay cérémonie officielle rek yooyu daanaka amul benn njariñ li li li li li ki li li li licence bi daal mooy jàngu al jàngum alxuraan bi ak xasida yi ak berne yi te jàpp naa ne ren la ëpp yooyu yëpp te màggal gi guñ mos a màggal rek jàpp naa ne man gu ren gi moo ko dàq bu ñëwee nag wuruñu ko bàyyi rek mu jàll noonu dañu cee war a jàngate ay bind ci jëmm ji nga xam ne moom lañ koy wooteel muy Cheikh Mouhamadul Fadal buñ ko jëlee jëmmam rek teg ko ak fii réew mi toll mën nañ cee jàngate jàngat yu bari ci ay jikkoom ndax moom boo gisee bis bu yàlla sàkk rek dañ koy gën a bëgg damay wax ne ñi ko xamul sax ñoo ko gën a bëgg ndax bu ñu la nettalee dara ci jikkoom rek noo mën a def da ko sopp ndax xolam bu laab ak xajoo nit ñi ak xajoo seeni bang-bang loolu nag baat bu gàtt la waaye baat bu jafe la ndax nit ñi ci boppam yàlla moo leen am lu mu leen mooñaale moo moo am lu mu leen mooñaale loo xam ne nii ku leen mënta ku leen mënta muñal lool rek pour nga yilif leen lu jafe la kon ñi nga xam ne ay njiit lañ te bëgg te bëgg te bëgg ñi ñi yilif ñu bëgg leen nañ yaatal seen dënn ni seex Mouhamadul Fadal yaatale woon ab dënnam ndax na moom daana wax ne xajoo naa leen xajoo seen i bang euh, yor jikko yu rafet yoo xam ne nii du tooñ te ku ko tooñ mu jéggal la te it euh, loo ko def rek mën na koo muñ nit ñëw ne bind ko ab leetar nitu nitu nitu kese rek kenn ñëmu ko rawat na ku toll ne Cheikh Mouhamadul Fadal bi mu jotee ci leetar bi daf ko woolu ba mu ñëw ne ko la nga bëggoon di am na am nga ko mooy bëggoon nga am ma jot ci jot naa ci bëggoon nga bu ma jotee ma am lu ma naqari am naa lu ma naqari waaye bi ma ko amee rek la dañ ndax man dara laa du naq laa du def sama xol bi luy naqari ndax eh, nit ku ne damay xool insaan yi gi nga doon waaye li nga bëggoon lépp am nga ci waaye nag ma wax la tuuti li tax nga def ko mooy xam nga ne yow eh, lii li tax nga ñeme ko mooy xam nga ne man mbaax gi ne ci man ak yërmande ji nekk ci man ak dënn bu yaatu bi ne ci man niwut ci yow ndax loolu bu nekkoon ci yow doo ñeme ba di ma ko bind. Ah, daawul fàggul boppam dara itam wala muy fàggul ak njabootam dara loolu itam ku ku jiite nit ñi te bëgguñu bëgg la da ci bàyyi xel bu baax ndax ku toll ne Cheikh Mouhamadul Fadal euh, def fi jumaa ju toll ni bu ñu la waxee jumaa ji li ci dem ci ay million kenn xamul nu mu toll mu dëkkee woon néegum ñax. Euh, loolu dimension bu bu bu sori la te it ak njabootam bàyyu leen fi bàyyu leen fi lu ñuy donn mën nañ ne jigéen eh, góor ñi kenn ku ne dix-huit mille nga amoon dix-huit mille nga amoon ci góor ñi jigéen yaakaar naa neuf mille francs lañ amoon leneen li des mooy ay lalak ay kopp ay ay palaati eh, nik xànjar yi lañ am te it lim fi bàyyi ci wàllum xaalis jàpp naa ne juróom-ñett fukki junni lay toll eh, kon moom dajaleetuloon boppam dajaleetu ak njaboot faggulutoon tamit ak njabootam dëkk bii bi mu bi mu ko lotisee kenn ku ne xam na ne bi ñu leeralee ginnaaw sëñ Touba dëkk bii di tuubaa ci turam la féete woon ku fi dëkk rek ginnaaw yàlla Cheikh Mouhamadul Fadal moo la fi dëkkal moo dagg jumaa ji daal di eh, wax ak njabootam ñi ko dëkke woon ñëpp dafa def ab communiqué ne sama waa kër nañ dem ba ca ginnaaw ñaar fukk ba ak juróom-ñett mooy 28 28 ba 28 nag buñ koy wax ñu bëri dañuy jàpp ne eh, fii la rek ci ci ci ci station bi waaye 28. jëmmi euh, station bi fi mu commencé ba dugg ba ci biir marché ba ba yam ca fa canal ba ne loolu foofu loolu mooy 28 bi ndax mbedd mi boo ko nattoon nii 28 mètres la jëmmi mbedd mi moo yaatoon moom lañ xool xoroo fi Touba ñu ñu ñu ñu nattale ñu ñu ñu ñu ñu to dëppale ko moom muy 28 waaye ñu bëri fi ne boo leen laajoon 28 dañuy jàpp ne ca station ba la jëm ci kaw waaye mi ngi commencé ci station bi dugg ci biir marché bi aw ci maquette bi dem ba ca canal ba loolu mooy 28 maam lër yaatuwaayu mbedd mi. moo doon 28 mètres foofu mooy 28 ba mu def communiqué ne képp kuy euh, wéyee sama ndigal na nga dem ba ca ginnaaw 28 mètres wax nañ ba ña fa dëkkoon euh, am na ñu mbokk yi leen doon seet si dañ leen daan ree naan leen yéen da ngeen a génn dëkk bi waaye boo xoolee borom baatin lu mu def foofa boo xoolee mm, fuy wëlooru ci Tuubaa rek moo la gën a wëlooree kon moom gisoon na loolu waaye itam li nga xam ne mënutoon a ñàkk muy waa kër Sëñ Tuubaa yi ñu ñu wër Sëñ ñu wër jumaa ji loolu loolu loolu loolu mënutoon a ñàkk ndax moom amutoon dara bëggutoon doon dara ndax ba mu ne yaa ayyuha cheikhu nafisu murtaja yaa fatihan maa xablu kaana murtaja tu bu nootee bil iraada lakum li koy onza bi xarxaada booba la tàggoog lépp bëggatut daana wax naan bëggumaa bëggumaa doon doom ju doom doom ju bëgg doon nu baayam bëgg doonuma it taalibe bi bëgg a seex man naa na na na buñ tuddee suñ tubaa rek ma dugg ci biir buñ tuddee suñ tubaa rek ma ci biir te loolu yëmul ci ay wax kese boo xoolee da ko da ko wax ba noppi pratiquer ko euh, ndax loolu yu war jumaa ji yëpp ay kër yi waa këram la mu woo njaboot ak Sëriñ Tuubaa gi dëkkal leen fa ba noppi euh, li nga xam ne mooy marché bi li nga xam ne mooy gën a dugal économie ci dëkk bi muy marché Ocass mu def ko fi waaye ba mu ko defee ay ay ay waa këram ay dongaam ak ñëpp dëkk nañ fa taxul mu yëkkati kenn jox la ko dan da da koo def ci turu Sëriñ Tuubaa nga xam ne ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa rek yaay yilif marché bi loolu lim ne buñ tuddee Sëriñ Tuubaa ma dugg ci biir loolu rek boo làmbee da nga koy da da nga ko ci gis euh, mu mu demal Sëriñ Tuubaa Màkka itam loolu loolu itam loolu tamit loolu tamit moom da doon xool yi nga xam ne mébéti sëriñ bi doon mu jëm koo mottali loolu ak ak mëggeel fi la mën a yem euh, ñaar kenn xam ne Sëriñ bu Buso bind na ne Sëriñ Tuubaa ñaari naal la fi bàyyi woon muy dem Màkka dem Màkka ak tabax jàngukaay bu mag Euh, ci dëkk bi jàngukaay ba euh, demal na ko Màkka tabaxoon na jàngukaay ci ndax jumaa ji kenn ko ne daarul maarif bi fi ne 1963 la la fi nekkoon ba tey mu jàngukaayu xam-xam-xam bu mag ndax boobu magee na ci dëkk bi daanaka université la woon ndax lu toll ne jumaa ji euh, dëkk bi demeewutoon noonu lu ñu daan wax rek ci rajo jumaa ji lañ koy wax ñëpp déggandoo ko dëkk bi boobu bëriwut ay kër kon man ne mel ne jumaa ji eh, jumaa la woon waaye université la woon kon def na ñaari bëgg ñaari ñaar yooyu nga xam ne moo doonoon bëggug sëñ bi yépp matale na ko sëñ jaxate moo fa nekk ba Euh, suba boo bu dee bisub jàng boo fa demee dana la jàngal kon def na bëggu sëñ bi ba fii jam ba bi jumaa ji toll it wër na ju wër na sëñ bi ba noppi daan ne ko mbàkke fii nga toll fii fii lañ toll toll la fi su suñ ko weesoo weesul la fi ndax yow loo jërul amul fu suñ ko suñ ko weesoo weesul la fi ndax yow loo jërul amul moo indi université bii mun Muntaxa di tabax di gën a mottali yéene yi sëriñ sëriñ bi ndax ñoom dañuy xool dañoo bëgg sëñ Tuubaa dañoo xool lu mu xalaatoon wala lu mu bëggoon rek ñu jëm koo mottali yàlla na ko yàlla matale ba ba ba ba ba ba ba am sotti ci jàmm di wax de nag sëñ sëñ Fallou dañ ko war a indi képp ku jiite te bëgg ñi nga jiite bëgg la comme niñ ko bëggee wala ñu bëgg la sax même boo fi nekkatul yow da ngay jéem a làmboo jikkoy Cheikh Mouhamadul Fadal ci ci ci ci ci tol am tolérance yaatu dënn mën a ma ma ma ma ma ma nit nit tooñ la nga mën a fay ba noppi jéggal ko loolu mooy ak njàmbaar waaye ku la ku la ku la wokk nga xuri ko njiit lu koy def rek néewuma doo dem waaye fa nga bëgg a àgg doo fa àgg kon nañ indiwaat Cheikh Mahamadul Fadal def ko def ko def ko référence def def ko référence ku ko def rek lépp loo jiite mën nga ci bu dee kër nga jiite sax boo jëlee Cheikh Mahamadul Fadal jéem a làmboo ay jikkoom da kër ga waa kër ga danañ la sopp rawatina ku jiite ab dëkk wala ku jiite am réew waaye kilifa du def ku ku ku ku ku yow rek nga mere ko wala nga sanctionné ko loolu nit ku nit ku nit ku xamul dara rek moo koy def di wax tamit di wax tamit ne euh, boo gisee président bi fi nekkoon di président Senghor euh, minorité bu ndaw lañu woon ñoom ci réew mi ndax mutuñu woon cinq pour cent sax ci réew mi waaye boo gisee bi ñuy xëccoo réew mi Sëñ Fall da ne ñi koy xëccoo de ndax moom borom xam-xam la aalim la. Euh, kilifaat war naa am xam-xam balaa jiite maanaam am dañ ak réer ci fu noon yëpp euh, mu ne ku një ku njëkk a ñëw de tudduma bëgguk sëriñ bi ma jox la man yow laay jàppale te bu ma la jàppalee nga jëm nga nga jël réew mi. am na ki comme comme Lamine Gueye ñëw na waaye ba mu ñëwee wax ko dara lu jëm ci ci ci ci liggéeyub sëñ bi wala bëgguk sëñ bi wala lu jëm ci dëkk bi euh, contraire ba sax moom ndax sëñ Fallu sax daa yëkkati xaalis jox ko mu jël ko ngir ñu dimbu dimbu ndee ko dimbu ko dimbu ko noo dimbu dimbali koo ko ngir ñu dimbali ko mu nangu ko yóbbu ko Senghor nag bi mu fi ñëwee donte du ab jullit sax moom dana dane ko papa man de lii may wut boo ma ci jàppalee ba ma am ko bëgg gii nga xam ne mooy mooy bëggu sëriñ bi danaa la ci jàppale danaa la ci jàppale mu ne nag moom moom moom lay jàppale te dana gañe te booba Senghor sax jàpputoon ne moom dana gañe réew mi ndax boobu moom du ab jullit te minorité leen ñoom ci réew mi jàppale ga nag lu mat a leeral la du jàppale goo xam ne ni jàppaleek financement lay doon maanaam jàppale gi ci wàllum kayit yeeg euh, wàllum administration bi wàllum jàppandal li matériel bi war a jëm si ci dëkk bi ak yooyu la waaye jumaa ji li ko liggéey lu lew la ndax dëkk bi ñu ne fii ñu nekk rek ay tool la woon yoo xam ne ni li fi daa ñore lépp ci jumaa ji la daan dem daana buñ daan bay day ñëw daan ne li fi li ma fii def su su su su su naree su su su nammee wor liggéey bi suñ tubaab bi moo ko bàyyee yàlla mel na xorom ak seex yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ak ak doomi suñ tubaab yi ak seex yi nga xam ne ñoo toppoon suñ tubaab li daan bay lépp dañ ko ko daan jox mu mu di ko def ci jumaa ji yor na ay leetar yu bay yoo xam ne nii ci ay kilifa la jëmoon am na ci boo xam ne nii ci waa kër ma Massamba la jëmoon dafa bind ne dama ren dama fobaat liggéeyu jumaa ji te dama bëgg ab million bu gaaw kon loolu rek damay day wane ne fiir firnde la le financement bi jëm ci jumaa ji lépp murid yi ñoo ko def muy taalibe Sëriñ Tuubaa yi muy lu lew te lépp ci alali mbay la jóge kon jàppale gi du lool du du du wàllum financement euh, lu ñu bëri dañ naan seen xel dañ ciy dem naan lu tax mu jàppale Senghor te kee di ab jullit te xanaa ab jullit moo war a gën a yayi ci jàppale nañ bàyyi xel ci bu baax ne lim leen doon jàppale liñ leen doon jàppale du du du du diine ndax kenn ku ne xam lii ñu tënk ba mënuñoo dox benn wàll benn mètre ñun tënk suñu xel yi muy lii ñuy attewoo muy laïcité nga xam ne du du du du dara du dara booba ñoom ñëpp moom lañ ku fi toogit moom ngay doxal ndax colonisation day doog a jeex te tubaab bi moom ñoom moom lañ fi bàyyi woon ngir gën ñoo mën a tënk léegi euh, yooyu nag bu bu ñëwee ci borom xam-xam da ngay xool yow ki ci gën a euh, wax lu luy jariñ diine te Senghor moo ko wax moo tax mu ne moom lay jàppale ci saaxir ak ci baatin foofu la teg jàppale gi ba jàppale ko mu daal di jël réew mi euh, Senghor it jàppewutoon Sëñ Fallou ko ordinaire ndax benn décision bu muy jël ci réew mi dana ci diisoo moom ak kilifa yu bari yi ne ci dëkk bi bañ ànd ci juboo ñu doog di ko doxal wax mën naa wax ne Senghor bu réussiré yàgg ci réew mi te sax bokkut bokkut li ëpp liñ naan majorité ci réew mi bokkut ci ñoom loolu loolu moo ko ko may xam ne kilifa yii duñ ay citoyen ordinaire te ku xam la xew ci réew mi fan yi rek da nga xam ne ñii duñ nit ñu ordinaire ndax ay fan ci ginnaaw ay ñetti fan ci ginnaaw réew mi naroon naa tàkk waaye ñi ñu jàppee ñu ordinaire ñoo régler situation bi kon nañ leen bàyyi xel bu baax te xam ne duñ nit ñu ordinaire yàlla nag da leen a binde mooy nguur dañ ko bëggut ñoom moo tax ñu ñu seen mbir xaw a ñu bëri jàpp ne ñii dañoo xamul dara waaye li ñuy nas ak li ñuy def lépp ñu ko xam lañ danañ xam seeni naxit ba noppi di ca di ca tàbbi di di ca tàbbi ñi nga xam ne ñoo jiite kon di wax ne képp ku yilife te bëgg ña nga yilif ñu topp la wala ñu bëgg la làmbool ji koy Cheikh Mouhamadul Fadal muy yërëm ñi nga xam ne ñoom nga jiite